li xew tey kay leen seetaan li xew tey ñëw leen seetaan li xew tey salaamaaleykum mbokk yi xarit yeeg am di jàmm xam ngeen ni sama jotaay bii tey euh, wute na ak jotaay yi nga xam moom fi daan faral di am xew-xew la lu ma leen di yëgal loo xamante ni lu bees tàq muy lan muy am fii ci MK TV salaamaaleykum sénégalais ak sénégalaises yi ñuy seetaan ci MK TV di nouvelle chaîne leader boo xam ne vraiment macha allah mi ngi yëngal jamono di leen ñaanal ñoom ñëpp jàmm ak sutura man la Moustapha Touré l'artiste comédien euh, dëkk Saint-Louis di liggéey ci projet boo xam ne mi ngi tudd euh, lu xew tey. salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna man la Mori Mori Ba di interpréter le rôle de monsieur Guissé ci série bu bu neex série bu nar a yéeme. bu ñu tuddee lu xew tey. bon salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yu M4 TV c'est Mamy Linguère euh, may interpréter le rôle de Linguère ci série bi nga xamante ne moom mooy li xew tey comme ni ñu ko waxee euh, ministre de la femme ci régime sortant bi mais en même temps tamit dama nekk en opposition ak sama borom kër ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy soog a falu muy le DG Guissé. Buenos días a todos y a todas yo me llamo Mamy Ndiaye. yo soy una alumna yo tengo 19 años maa ngi tudd Mami Ndiaye maa ngi am 19 ans dëkk Mbour waaw di leen wax ni série bi tudd li xew tey nanka waajal te nga xam ni produit la boo xamante ni man ak Tapha Touré ak it yeneen i ña nga ci biir série bu am importance la parce que maa ngi ci nekk man euh, chauffeur chauffeuru DG laa si nekk Euh, nekk ci kër gi ànd fekk jibi sëy moom mu nekk sécurité euh, ñu nekk fekk kër gi ne vraiment moo ambiance totale parce que man borom kër gi mooy sama xarit muy DG euh, jibi sëy moom jabaru DG mooy xaritam mais vraiment nag mu nekk film boo xam ne film bu spécial la. ma leen di wax ne na ngeen ko waaj série bu doy waar la série bu neex la. man na maa ciy incarné ki nga xamante ni man maay gardien bi Tapha Touré moom moo doon chauffeur bi waaye mu nekk série boo xamante ni dafay wax ci li nga xamante ni moo xew ci kër yi léegi jamono yi surtout nag ci ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci pouvoir ak ñi nga xamante ni ñoo doon jàppale pouvoir mu nekk comédie bu doy waar boo xamante ni diggante euh, gardien bi chauffeur bi ah ministre bi directeur bi affaire bu jaxasoo boo xamante ni lu doy waar doy waar doy waar loo xamante ni xaar leen ko ci M4 TV. xam ngeen ne am na lu xewoon démb amoon na lu xew bërki démb moo tax nag ñun tamit ñu indi lu xew tey mu nekk série boo xam ne. bokk ko ak gars yi gën a neex Sénégal <laughs> gars yi nga xamante ni seen neex forcé wuñ ko <laughs> dañ naturellement neex ñoo xamante ni si dañ leen di xool di kontaan ñuy joué ngay bëgg di kontaan di reetaan je vous nomme Djiby ak Tapha ñaan ñi nga xamante ni si ci série bi maa seen directeur ak sama soxna sama soxna ah, politicien la man aussi politicien la mais bokkuñu camp sama soxna dem na ba nekk ministre ci gouvernement bu njëkk ba mais nag fexe naa ba wàcce ko <laughs> wàcce naa ko mais bon am na lu des parce que man aussi la ma doon yóotu daanaka jotaguma bon film bi c'est élargi parce que man sama borom kër laa nekkal ci biir kër gi on a deux employés muy Madiaw ak Diop Euh, Madiaw moom mooy sama acolyte borom kër maanaam mook sama borom kër ñoom ñaar ñoo ñoo ñoo ñoo far man ak Diop Diop mën naa ne c'est presque moom complice ci lépp lu may mën ci def samay activité lépp luy xew ci kër gi moom moo may rendre compte euh, y'a aussi ma bonne mamie ñu nekk ñun ñëpp en parfaite entente léegi nag opposition boobu di am ci kër gi moom mooy répercuté wu ci employé. ci ba léegi ci loolu la ñu nekk nag série bu neex boo xamante ni pratiquement ay professionnels rek ñoo ko sekk. ñoo ko sekk bàyyilaat tan bombe bi ñëpp xam moom moo ko réalisé moo ko cadré te xam ma ni waaw ni ko sa waay waxee rek boo koo xamante ni ci monde bi nga bokk waaw boo jëree liggéey bi waaw lépp day tegu ci yoon njuumte war moom su boobaa comme on dit euh, amatuloo droit erreur quoi ok ba tax na waaw bu dee mbegte kase Sénégal xaar leen ko di ngeen bëgg yéen ñëpp série bu neex la série boo xamante ni lépp a ngi ci comédie mi ngi ci jàngale mu ngi ci parce que su ma soxna malgré am bokkuñu camp euh, malgré moom ak supérieur woon ci genre statut comme moom ministre la woon maintenant parce que jigéen la boo xamante ni si fonk na jëkkëram mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi koy sëyal genre am na jàngale bu bari bu nekk ci biir am na aussi comédie parce que jibi ku ne xam na ni ndaanaan la dafaa ku ne xam na ni ndaanaan la dafaa nekk ci sama chauffeur jibi nekk suma gardien mais chauffeur boo xamante ni lu ko neex lay wax patron am fii rek la am. yore naa code de la travail di si si xool ay ay euh, code yi li nga xam ne moom la article yi ak chapitre yi wax ci wàllu liggéeykat buy liggéey ñu fonk ko jox ko ay droit mu nekk série boo xam ne macha allah série la boo xam ne sénégalais yi daal maa ngi leen wax ni leen ginnaaw bande annonce bi mu ngeen abonné ci chaîne bi. te partagé ko ba pare bàyyi xel ni nag série bi nag dina daw foofu nag waaye nag mun loo xam dafa ànd ak actualité nag kon ñu ngi siy invité ñëpp di leen wax ni vraiment kontaan noonu di remercier nag ñi nga xam ni ñoom bokk liggéey bi doo rek si artistes yi vraiment jigéen ñeeg góor ñeeg ñëpp bàyyiwuñu kenn ànd bi rafet waxtaan yi am solo bokk ndey bokk bàyyi vraiment mu nekk lu am importance ñu jóge foofu tamit ñu remercier techniciens yi. ah ku mel nag Tan Bombe suñ ko remercier remercier nañ preneur de son yi régisseurs yi ñëpp ñi jàpp si liggéey bi ñu ngi leen di remercier tamit vraiment di remercier tamit euh, ki bind scénario bi moom it suñ ko waxee nuyu nañu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp di ñaanal sénégalais yi jàmm ak sutura di leen ñaana suñu borom doolu seen i jàmm dooli seen sutura gis na ni ngeen ñuy toppee ni ngeen ñuy suivre donte ñun dañuy taxale rek vraiment mais application beeg appui appui beeg euh, yu ngeen di def daal yi mu nekk ay actu yu noble jëmale ko suñu jëm yi loolu bu ñu amee occasion yore micro dina leen remercier yéen ñëpp. ngeen xaar ko fii si M4 TV lu nar a xeere lii di Madiaw Diop patron moom kenn waxu ay waxam patron bu góor rek laay topp kooku bu ñëpp menoon ni moom yaakaar naa kër yi duñu am problème de waaye lii di madame moom. kooku moom dafa perdre la tête waaye Jóob ma jaw may ñu ma toog xale yi ñoo ma sonal waaye dinañ xam ne man lañ ko fekkal man mi nga xamante ne dama mat rek tàng rek laa def wante dama carré man miy jógee ba Espagne immigré ñëw awma lu may def lu liggéey ay mbindaan. waaj leen ko muy production boo xamante ni ñu ànd ceeg sunu naataangoor sunu rakk sunu xarit euh, Tan Bombe nga xamante ni moom moo yor lépp lu jëm na ci wàllu image ak son ak réalisation ci loxoom lañ ko teg xam nga ni loolu du yomb. ñun ñëpp on travaille en bon terme alhamdulilah parce que ñu ngi koy teg si yoon techniciens yi ñu ngi liggéey ak ñun en en temps réel ñun acteurs yi nga xamante ne tamit ñu ngi joué ndoo ensemble dans une même villa. vraiment le courant passe très bien parce que ñi nga xam ne ñooñu ci mag ñu ngi ñuy dalal tout le temps ñu ngi ñuy rectifier di ñu jàngal di ñu jubbanti vraiment awma dara lu ma ciy wax loo xamante ne lu dul. Euh, bànneex la ak mbégte bu ñuy partagé ak ñoom ci moment yi wax dëgg fa neex yàlla lépp mu ngi jaar yoon euh, su loolu jàllee maa ngi leen di jox rendez-vous ci M4 euh, TV parce que fii la ñu war a fësalee li nga xamante ne moom moo di produit bi incha allah ngeen xaar ko rek euh, journée bu nekk ak thème bi nga xamante ne moo ciy xew comme ni ñu koy waxee lu xew tey chaque jour ak li ciy xew ma di leen jox rendez-vous ci M4 TV bientôt incha allah. di ñaanal jàmm di ñaanal télé bi ci kaw. muy tele boo xamee ni vraiment c'est le meilleur c'est le meilleur parce que matériel yi ñu yore technicien ya fay liggéey ah vraiment mu nekk télé boo xam ni xam nga tele ñu ubbil ko ay nit ba pare defalee leen piscine ci wetu tele bi technicien yi di liggéey bu ñu paree sangu ci piscine bi journaliste yi liggéey wàcc dem sangu ci piscine bi ak ni mu tàngee loolu bu ko nit defalee ay ay jeunes si réew mi dañ koy wax télé bu am piscine à côté mosuma koo gis fii rek laa gisee M4 mu nekk kon nag lu am solo di ci woo nag ñëpp nag ñëpp ñëpp nag wax dëgg yàlla innovation bi nag a gars yi def na TFM piscine 2S am piscine Sen TV am piscine waaw yeneen site internet yi am piscine parce que M4 TV daa am piscine maa leen ko wax di leen jaajëfal kon ba beneen incha allah rabbi Restez connectés sur la nouvelle chaîne télévisée MKTV. li xew tey kay leen seetaan